الله حسبي لديني حسبي الله لما إليه اهتمامي حسبي الله لكل باغ علينا دائما أبدا كذا لمن يحسدني mawlud ñu gën ko xam ci gàmmu Sénégal di ko màggal ci tarixa yépp ku nekk ak façon ba nga ko nar a muy nag juddub sang bu tedd bi di saydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam benn ci équipe bu Mafatihul Bichri TV nar ko fii ci dëkk bu sell bi di Tiwaawan dëkk Xaj Malik Si dëkk Sidi Aboubacar Si radiyallahu taala anhu waaye it di dëkk kii di xalifa général kulli tijaan di Serigne Cheikh Al Maktoum mu mel ni que ni lii njëkk njëkk ci xibaar yi ñeel gàmmu gi bokk na si ndimbal gi njiitu réew mi Macky Sall def ngir rek taaral guddi yenant bi sallallahu alayhi wa sallam ci noonee nag am na benn complexe bu yanj daal nañu ko rek inauguré niki dimanche gi weesu ci teewaayu Serigne Abdoul Aziz Al Amin mu rafetlu lool nag nga xamante ni njiitu réew mi jot na ko amle foofee ci dëkk bu tedd bi di Tiwaawan ba tax na sax complexe bi ñu ko dippee kii di Sidi Hadj Malick Sy radiallahu taala anhu euh, ca noonee sax jëwriñ bi ñu dénk euh, wàllu wér gi yaram ci suñu réew du ministre de la santé et de l' action sociale euh, moom Awa Marie Coll def na ab délégation bu rëy ngir rek daal di dajale képp kuy service d'hygiène ngir rek ñu amal fa liggéey bu mucc ay ba sax jot nañu fa jàpp ay marchandises yoo xam ne dafa varié te sax kenn waru ko mën a jaay ci mim réew loolee nag doon benn exploit bu ministre de la santé seenub ñaareelu liggéey bokk joxe ay garab ak i matériel de soins médical ci yenn ci opito yi nekk fële ca diwaanu Tiwaawan mu mel ni que ni kilifa gi yor wàllu wér gi yaram jël nañu seeni matukaay ngir rek amal gàmm gu mucc ayib Serigne Boubacar Cissé di chef de brigade d'hygiène bu Tiwaawan di sàkku si askan wi ngir ñu gën a fagaru si yenn jàngoro yi waaye teg ci itam ñuy rek sarlo di xàmme garab garab yi jot a varié ñoom nag def nañu li ñu mën ngir rek dindi lépp lu luy médicament yu périmé ci marché yi la te sax booy seet ñi koy jaay umpale wuñu ko waaye dañu daal di profité ci nit ñu bari ñi daal di riiroo dem ca Tiwaawan ngir ñuy daal di jeexal seeni marchandise waaye marchandise yooyu la buur teg na ci loxo te ña koy jaay itam sa si tembe ñu ngi ca loxoy police bu Tiwaawan askan wi itam namm lañ leen taxawu bu baax si seen wàllu wér-gi-yaram euh, ci buñu ñu sukkandikoo euh, ci secrétaire général bu ministre de la santé et de l'action sociale euh, moom Serigne Ibrahima Wane di ñu xamal ni jël nañu koppar bu takku ngir rek teg pèlerin yi ak ñi fa dëkk ci condition bu normal fileek gàmm gi di jeex lu toll juróom fukk ak ñaari personnel la ñu jël daat leen wasaare ci poste de santé Tivaouane yi ñeent fukki spécialiste ngir jàppale néew di doole yi waaye it lu toll ak ñeent fukki ambulance daal dañu ko tasaare ci diwaan boobu lee ngir jàppale képp nga xamante ne ni sa wér-gu-yaram dafa xaw a ba tax na it jël nañ lu tolloog juróom fukki million ci suñuy koppar ngir teef ko li jëm ci wàllu matériel médical li ni ñu toftal ci hôpital Mame Abdou Aziz baax rafet lu na bu baax taxawaay bi nga xamante ne nii jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram def na ko ci dëkk boobu boobule ba tax na sax moom yi nga xam te moo di jëwriñ bi jël na engagement ngir rek daal di yeesalaat hôpital boobule ci lu tolloog benn million milliards ci suñuy koppar mbokk mu mel ni que ne nag lépp lu nga xamante ne nii moo di secteur santé la ñu warloo woon ak gàmm gi matale lañ ko ba mat sëkk xanaa di ñaan rek askan wi daal di mën a fonkaat seen wér-gu-yaram mbokk ci spectateur yi ma faa joxul bis yi lii lañ leen indiloon ci exploit du grand gàmmu de Tivaouane 2015 di leen xamal ni rek ni njiitu réew mi moo Macky sal def na foon ak tukki ndemeeku bu am solo bu ñëpp rafetlu rawatina it population bu Tivaouane soxna Aïcha nekkoon na ci kàddu gi fegoon nag Serigne Khadim Gueye si montage bi depuis Tivaouane ngir rek digtal leen li gën a fës ci gàmmu 2015 bi leen lidaka tawassalna ilayka bi kulli ma atatka sama muxtalatan bi suudiha barke makka